mbokk yi Serigne Modou Aïssa nee na mi ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. di ko tàmbalee ci suñu mag muy Serigne Moustapha Mbacke ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax. ñu ngi nuyu mboole mbokk yi yëpp. di leen ziyaare bu baax te di leen ndokkeel ci weer wu sell wi nga xam ne. ci lañ amee lépp lu mat a am ci lu baax ñu ngi ñaanal Cheikh mu Mountakha suñu borom yàggal ko fi wéral ko ba mboolem li mu naanal Serigne Touba mu àggale lépp ci ànd ko ak taalibe yi kàddu yi ñu bëgg a yëkkati nag yi gàtt lay doon kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ Mame nee na mu wax ni. nee na ñu ngi sant ñëpp. mboolem ku jàpp ci bis bi. ca teew fi. wala nga am ci xalaat bu rafet. bu mën a doon. mboolem kilifa yi fi ñëw yépp dem ba léegi. kilifa yépp a ngi fi ñëw. nii jamono ju tëddee. moo tax mu demee nii. mu wéyal ndigal li sëriñ bi joxe woon moo tax mu doxale ko nii kon neena na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di nuyu mbooleem mbooleem ñi fi seeni doom ñekk ñekk góor ak jigéen di leen nuyu baax di leen ziyaare te di leen ndokkeel tamit ni nga xam ni seeni doom wat na alxuraan ci wattu googu di wattu gu rafet goo xam ni boroomi xam-xam ñoo ko saytu ba dëggal ko ñu dog koo wéyal nee na ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax te di leen dénki nee nañ yéen xale yooyu mokkal ni leen toppatoo bu baax a baax fexe bañ jàng xam-xam te xam ni alxuraan nitu ordinaire du ko mokkal ku ko mokkal rek am nga ab sër cër ci suñu borom kon nañ ko fonk bu baax te toppatoo leen nee na miñ ngi ciy ni bis bi nee na li tax ñu def ko ci waxtu wi dañ koo def ngir addiyaale ko sëriñ Touba. ñu jaayante ak Serigne Touba. fas yéene ak mu jot. su weer wi teroo. ndegam Serigne bi alxuraan rek moo doon ak bëggam. mu am pas-pasu. ko ci liggéey boobu. fas yéene ak mu jot. mu am lim bu takk. bu kawee lool. ñu mokkal alxuraan. ci anam bu sell. mu addiyaale ko Serigne Touba. loolu ku fi teew rek. walla nga fi daan teew. loolu teg nga sa kon ñi ngi sant bu baax. di ñaanal tamit xale yi. suñu borom def leen ay mag. def ci ñoom xam-xam ak barke ñi fi desit te mokkalaguñ ñu gën a góorgóorlu bu baax te xam ni alxuraan da nga koy jox sa lépp mu jox la tuuteem. bu ngeen ko defee te góorgóorlu seeni waajur bàyyi leen fi lu mu métti métti buñ war a wat alxuraan dinañ ko wat ci diggante bu gàtt te alxuraan ku ko mokkal sa yaram araamal na sawara kon sëriñ baa ngi wax ni bis bii bu màgg ci moom am na bis bu amul bis ko gën a màggal ndax Serigne Touba la ciy liggéeyal jaar ko ci alxuraan te ku ne xam ne Serigne Touba alxuraan mooy ab cëram fonkoon na ko lool lépp lu muy def alxuraan la ci daan jiital kon nag ñi ngi sant ñëpp ki fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ku fi teew ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal xéewal di ñaan bis bi jublu muy màggalu Touba suñ borom yóbbu ñu ci ak jàmm ñu def ko jàmm génn ci ak jàmm te lépp day xéewal di di namal bépp tawa ji ñuy wax ci àdduna bi ñu ngi ñaan bu bis bi ñëwee yàlla bu mu ko na suñ borom saafara ba mu jeex tàkk ci barke bis bi barke seelu Xadim noonu ñaan nee ñu ngi yem foofu li ci des ñu jox sëriñ bi mu àggale ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah sant sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ñi ngi ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak ku wér ba li mu yéene ci yoonu Cheikh Ahmad Bamba yu mu àggale ko ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp nee na di ñaanal sëriñ Abdou Aziz moom sëriñ Moustapha Abdou Aziz mii suñu jëwriñ ci buntu kër sëriñ Moustapha Abdou Aziz suñu borom yàggal ko fi te wéral ko. ki nekkal sëñ Baara. ki borom sëñ Moustapha nga xam ne yebal na fi ndaw mooy Cheikh Baara. yebal ay rakkam ñu teew fi teew ki fi nekkal Serigne Baara muy Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Sidi Moukhtar nga xam ne yebal na ndawam Serigne Cheikh Baara laat léegi la fi jógee delluwaat ay rakkam a ngi nii teew muy Serigne Modou Aïssa mii daaneel kàddu gi léegi nee na mi ngi ñaan suñ borom yàggal ko fi lool tam ko wér di siyaare Serigne Bassirou moom Serigne Moustapha Bassirou nee na mi ngi siyaare Serigne Bassirou Tiib moom Serigne Moustapha Bassirou moom Cheikh Mouhamadoul Bassirou di suñu waajur di suñu mbokk ci ñaari fànn nee na di suñu waajur di suñu mbokk ci ñaari fànn yëpp di am mbégte bu baax ci jataay bi teew gi mu ci teew. nee na di am mbégte bu baax ci teew gi mu teew ci jataay bi. ko ci sant di ko ci gërëm. nee na ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm. ak njabootuk Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Souhaïbou ay doomam a ngi nii moom moo leen fi yebal. ak njabootuk Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Souhaïbou ay doomam a ngi nii toog moo leen fi yebal. ñu ngi leen ñu ngi koy sant di ko gërëm. nee na ñu ngi koy ñu ngi koy sant di ko gërëm. di ko ñaanal bu baax. te di ko ñaanal bu baax. Serigne Moustapha moom Serigne Abdou Khader. Serigne Moustapha moom Serigne Abdou Khader. teew na fi teew na fi. tey jii bis bi Serigne Abdou Khader lañ ko tuddee. tey jii bis bi lañ ko tuddee waajuram muy Serigne Abdou Khader. mu ñëw teew fi teewaay bu mat sax. nee na mu ñëw teew fi teewaay ma sëkk. nee na loolu ñu ngi ciy sant gërëm ko ci. Serigne Moustapha moom sëñ Modou Baara. sëñ Modou ak sëñ Modou Aïssa. ñenn lañ ci ñun. nee na ñooñu moom ñenn lañ ci ñun. Hmm? luñ nekk maa nga nee na luñ nekk maa nga ca. ñooy nekk ci waxtu yu bëree bëri. nee na ñoom ñooy nekk ci wax yu bëree bëri. nekkee tout tànk ba léegi yàlla dañoo boole. nee na bañ nekkee tànk ba léegi yàlla dañoo boole. di jàng xam-xam di jàng xam-xam. ba tey ñu yàlla boole ñu. nee na ba tey ji yàlla boole ñu. kon kon sant nañ ñëpp. nee na kon sant nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. li ci des nag ñu doole sant tamit jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji. nee na ñi ngi sant ak a gërëm jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji Euh, ci seen taxawaay. ci seen taxawaay. ci seen pasteef. ci seen pasteef. ndax am na njitte lool ci liggéey bi. ndax am na njitte lool ci liggéey bi. Euh, di sant itam waajuru ndongo yi nee na ñi ngi sant waajuru ndongo yi ndax ñoom it buñ amoon yéene ubbi daara te indiwuñ fi seen doom lii du sotti nee na buñu amoon yéene ubbi daara te indiwuñ fi seen i doomi daara ju taxaw kon indi nañ fi seen doom ba noppi jàpp ci daara ji i doom ba noppi jàpp ci daara ji ba tax lii mën a am ba tax lii mën a am di sant taalibe yi nga xam ne ñooy waa xidmatul xadim di sant taalibe yi xam ne ñooy waa daayira xidmatul xadim Serigne Touba boole ñu amuk taalibe amuk taalibe mboolem julli di ak képp koo xam xamante ni bi taxaw nga ci bis bi mbaa nga yéene ñaan ci ak noo ci taxawee rek sant nañ la gërëm la ngir jëmmi sëriñ Tuuba sëriñ bi nee na mbokk yi ak xarit yi ak taalibe yi wëllëre yi ak dëkkandoo yi képp ku am yéene ci bis bi moo xam nga teew ci baa nga am yéene teew ci nee na sant na la gërëm na la bis bi nag li tax ñu def ko nee na bis bi nag li tax ñu def ko dañoo amul ku dul sëriñ Touba dañoo amul ku dul sëriñ Touba dafa fas koo liggéeyal te fas koo liggéeyal te nee moo di ab toolam moo di alxuraan. ndonoom moo di alxuraan. ndonoom moo koom-koomam moo di alxuraan. koom-koomam moo di alxuraan. ne sama cet mooy ñàkk a nekk Touba dafi jàngale alxuraan. sëriñ bi dafa wax ni sama cet mooy ñàkk nekk Touba dafi jàng alxuraan. ñu doon ay taalibeem. ñu doon ay taalibeem. fas yéene koo nekkal ca loola. fas yéene koo nekkal ca loola. waaye nag sant nañ ci yàlla bu baax. waaye nag sant nañ ci yàlla bu baax. ndax yàlla dimbali nañu ci. ndax yàlla dimbali nañu jàppale nañu ci. te jàppale gis nañ ci tawféex bu baax. te gis nañ ci tawféex bu baax looloo tax nag. looloo tax nag. bis bii ñu koy jàpp. bis bii ñu koy jàpp. bisub gaaw la daan doon. bisub gaaw la daan doon. gaaw bi liñ ci jublu. gaaw bi liñ ci jublu. mooy xarak te yow ma sabti saamina sar mooy gaaw bi ñu génnewoon di liggéey li borom. mooy gaaw bi nga xamante ni ci la génnewoon di liggéey borom muy xarak te yow ma sabti jooju mu wax. ñu jàppaat ko ci weeru safar wi nee na moo ñu jàppaat ko ci weeru safar wi ngir di ko waajale màggal gi ngir di ko waajale màggal gi tey nag bu nekkee bisub dimanche nee na tey bu nekkee bisub dimanche dafa tombé le 27 septembre dafa tombé ak le 27 septembre tombé ak ñetti guddi yi ndakaaru ya tombé ak ñetti guddi yi ndakaaru ya ak daaw bis bi ñu ubbi masaalikul jinaan tombé ci daaw bis bi ñu ubbi masaalikul jinaan ñu fas yéene dundalaat bis boobu nee na ñu fas yéene dundalaat bis boobu indi 27 septembre indiwaat 27 septembre bi tombé bisu dimanche tombé bisu dimanche bi looloo tax tey du bisub gaaw lépp na dàkk Serigne Touba rek. ak nee na looloo tax doon doonul bisub gaaw mu doon bisub dimanche waaye lépp nag ngir dàkk rek ak bëgg ba ak ak ak bëgg bëgg a dàkk bëgg-bëgg Serigne Touba ba. kon kon kon kon uh, gone yi dongay daara yi. kon dongay daara yi. ñi nga xam ne daara ji bëri na. ñi xam ne daara ji bëri na. bis ni ki tey Euh, ba le 16. ba le 16. octobre octobre. incha allahu rabbi. incha allahu rabbi. sant suñu na ñu ngi sant suñu waajur. Euh, yaa soxna Mbacke Dieng. suñu waajur wu jigéen muy soxna yaa soxna Mbacke Dieng. ak mbokk yëpp. ak mbokk yëpp. ak ci nuñ mën a bokkee. ak ci nuñ mën a bokkee. ndax jàppale nañ ñu ci daara ji. ndax jàppale nañ ci daara ji. taxawu nañ ci te taxaw nañ ci. ndax ak ñëwam daar tansil kat. ndax ak ñëwam daar tansil. taxawu daara ji rek ko tax. taxawu daara daara ji rek ko tax. taxawu gi mu ci daara ji. taxawu gi ji. ba ba féete ñu fi suuf fi nga xam ne fa la ndey di war a féete doom ci dongo yi ba féete fi nga xamante ni fi la ndey di war a féete doom ci donga yi looloo tax ñu mën a sañciwaat yeneen daara dem di yàgg foofa ndax mi ngi fii te jàppee na donga yi ndax meseeni ne neey doomam nee na looloo ma looloo tax ñu mën a dem sañciwaat yeneen daara ci suñ fa yàggee dañ suñ demee dañ fay yàgg te suñu xel day dal fii ndax féete na donga yi fi nga xamante ni fi la seen foofu leen seen waaj yi waroon a féete sant mbokki Abdalla Buri Fall yëpp nee na ñu ngi sant mbokki Abdalla Buri Fall yëpp ak mbokk yëpp ak mbokk yëpp ci seen taxawaay euh, day da di kulim nee na day fekk ne kulim doom ah, ah, ak ak ñi nga xam ne teew nañ fi teewal fi ministre bi. ak ñi nga xam ne teew nañ fi teewal fi ministre bi. ndax loolu yitte la. ndax loolu yitte la. bari na ñoo xamante ni bi maanaam bis bi. bari na noo xamante ni maanaam bis bi. dañ ko boole ci seen bisu bopp. dañ koo boole ci seen bisu bopp. waaye kenn umpalewul na jamono ji waaye kenn umpalewul jàng jamono ji am na lu xew ci àdduna bi. na lu xew ci àdduna bi. te te te jotaay yi dañ ciy bàyyi xel bu baax. dañ ciy bàyyi xel bu baax. waaye ñaan nañ ci barkeb Sëñ Tuubaa. waaye ñaan nañ ci barkeb Sëñ Tuubaa. loolu jóge fi. loolu jóge fi. barkeb Sëñ Tuubaa. barkeb Sëñ ak barkeb Màggal. te rafet nañ ci njort lool. te rafet nañ ci njort lool. ndax ndax ki fi nekkal Sëñ Tuubaa. ndax ki ñaan na ci ñaan na ci. te lu mu ñaan suñu borom dana ko ci dimbali. nañ ñëpp. kon sant nañ ñëpp. ñu jox sëriñ Basiiru. mu ñaanal mbooloo mu ñaanal mbooloo mu ñaanal ñu doon dëgg-dëgg taalibe. mu dëgg-dëgg taalibe. ndax dëgg-dëgg taalibe. ndax mooy dëgg-dëgg jullit. ndax mooy dëgg-dëgg murit. mooy dëgg-dëgg murit. buñ xalaat xalaat leen. du ñu sëriñ Touba. du ñu bëgg-bëgg. bu mu génn sëriñ Touba. bu mu génn sëriñ Touba. suñu yitte. suñu yitte. bu lay ñaan loo kon nga ñaanal ko taalibe yëpp. sant nañ ñëpp sant nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp. ñi may bër nag. ñi ñu may bër. am na ñoo xam ne dañoo war a bëri ci daara ji. am na ñoo xam dañoo war a bëri ci daara ji. xam ne. nañ xam ni. dañ cee am seen ndigal waajur cee am seen ndigal waajur. bu ñu am lu leen naqari. bu ñu am lu leen naqari. nañ ci ànd ak xel mu dal. nañ ci ànd ak xel mu dal. te xam ne ndigal rek. te xam ne ndigal rek. mooy jëriñ doom mooy jëriñ doom. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Basirou ñaan moom Serigne Moustapha Basirou. Amin amin Mbacké. Amin Mbacké. amin amin amin Mbacke corona bi